ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل ci loolu lañ tàmbalee liggéey bi woote ko am benn benn bokk taal bi ñu ñëw kon may ñëpp ku ñëwutoon na nga ñëw ku ku mënta ñëw ci te am loo jàpp dañ ñëw na nga ñëw nga xam ne daal mbokk taal bi yu nekk ci ndox mi fi nekk te kenn ku ne bu ko xoolee si bopp rek woyeef kenn ku ndox mi rek nañ fexe ba fii dugg ci béy ba sëñ Tuubaa waxoon waxtu ba sëñ bi yetaama dawaaman an si bi aban ku lexin yàlla da nga fàttaloo bi seen day seen baay daa big naa doon seen big ti boo xam ne dañu fàtt seen yi nekk ci ndox mi nekk nañ fexe bu ndikkee fii ngeen góorgóor fii mel ne euh, ab ne ko defal <laughs> nit ñi nekk kon la laay wax rek kon maa ngi woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw waaye rawatina njaboot Sëriñ Tuubaa gi ñi bokk Sëriñ Tuubaa dañuy jóg ñu xett leen sama bokk yi yaa àll bari yaa àll bari hujjul bari bal saqaay sëñ bi woote woon ak géej gi wóor géej gi waaye ñun ñi nga xam ne lu ñu am Sëriñ tax ñun xam ne Sëriñ Tuubaa daf ñoo boole ci boppam te boole gi ci boppam du suñu liggéeyam day du suñu du suñu pexe jaayut ndax am njëg gi mm-hmm. ñun ñëpp Sëriñ Tuubaa tax ñu boole ci boppam ba suñu yaay ñu leen yónni suñu yaay toj suñu toj kaw donc yi nga xam ne amuñu seen amuñu amuñu seen bopp sëñ Tuubaa jàpp seen maam ci toolu xare sëñ Tuubaa jël nañ ci marché bi yàlla képp lañ ànd ak moom buñ leen liggéeyee ñu liggéeyee buñ leen laaj ñu jox leen buñ toogee ci kaw ñu toog suuf buñ leen defee ñu def ko bu nekk jafe-jafe ñu fàttali nag kenn xamul doon te ëllëg lañ jëm adduna alaxira yàggal sëñ Tuubaa adduna alaxira nag ko yàggal sëñ Tuubaa nag adduna si képp nga am jafe-jafe loolu dañ sànni suñu bopp kon maa ngi woo sama bokk yi bokk sëñ Tuubaa ñëpp lañ jóg looy am jógal ñëwal joxal di mu leen ngi sëñ Tuubaa kenn ku ne am nga loo xam ne wër na bu doon sëñ Tuubaa doo ko am kon sama bopp laay tàmbalee nañ futtiku dëggee sëñ Tuubaa ci jaamu yàlla jaamu yàlla yi ku yàlla na dimbale koo xam ne sëñ Tuubaa mi fees na soxal wala yaa ngi yëg sëñ Tuubaa rek na ñëw bokk Tuubaa wa rahmatullahi wa barakatuh إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba.